you salaamaaleykum suñu mbokk internet yu Sénégal 9 TV dal leen si actu du dañ koy tàmbali ak homme d'affaires bii di doora gay Seeri Karara section de recherche bu Colobane daf ko daal di teg loxo ndax wàllum suuf biñ koy tuumaal tubaab nanka escroquerie foncière jamono bi may wax ak yéen Doro Gueye moo ngi si loxoy yoon ngir yoon mën a wéyal enquête bi ginnaaw ba mu ko convoqué démb si lundi bi mu ñëw ñu jàpp ko d'après information yi ñu am joxtu nañ ne tey homme d'affaires bi foofu lay fanaan ndax ni may waxee ak yéen nii mooy foofu ak ay avocat yi koy layal ngir xam ndax moom moo laale wàllum suuf wala laalewul wàllum suuf ba ni may wax ak yéen jàpp leen ne information yi dinañ ko gën a topp ba xam fan la wàññet bi mujjee ak ay gëtëm wéy leen di abonné si suñu seen YouTube bi di Sénégal 9 TV à Sénégal 9 TV benn information du leen rëcc di ngeen ko am en temps réel